te jàpp naa ne nag li ko desee en terme de balle de manipulation presque bareetul presque jeex na sax laay wax loolu tax muy woo xale yi naan rejoindre leen ma Dakar imaginez-vous Ziguinchor ba Dakar uniquement pour ces détails de Ousmane Sonko là il n'a qu'à assumer bi muy dem Sweet Beauté tàgguwul kenn tàgguwul xale yooyu donc Ousmane Sonko aujourd'hui il n'a qu'à assumer devant les hommes et devant l'histoire d'accord Moussa démb procès bi saan nga ko suivre nga déroulement bi suivre naa comme ñëpp voilà Adji Sarr euh, on s'attendait à, à des preuves euh, yoo xam ne xëy na dina dina dina dina dina dugal euh, Ousmane Sonko parce que on l'attend depuis deux ans mais là on a juste vu une fille buy wax ay wax yu dégueulasse di décrire yoo xam ne moom rek moom moo ko jàpp ne am na fa amul keneen koo xam ne ñëw nga ci loolu noonu avec tout ça on risque de condamner Ousmane Sonko ci loo xam ne ñu bëri jàpp nañu ne tey jii nii teguwul fenn en écoutant Adji Sarr en voyant le, le déroulement de ce procès ndax da nga resté convaincu que ne il ni mu ko jàppoon complot euh, seen gis-gis bokk mën na soppeeku ci diggante bi. gis nga euh, Adji Sarr euh, dafa am ay avocat mhm. te rôle avocat d'abord c'est de conseiller avant euh, jouer le rôle de représentation euh, Adji Sarr bu defee leen rek jàppal ne ñi am expérience ñoo xamante ne peut-être ñoom ñoo ko ko digal ñoo ko ko wax aujourd'hui Pape kii Modou Awa mhm. bu fekkente ne tey ji tooñ nañ la mais yow da xool boo porté plainte après da ngay xool effectivement ni ñu la tooñee naka la da koy wax mu leer il faut appeler la chat par son nom euh, Adji Sarr jàpp na ne loolu la war a wax parce que looloo am nee na. mais li jaaxal nit ñi donc buñ ko ko bañal. cest buñ ko bañal loolu ne li mu wax dégg nañ ko. buñ ko bañal loolu aussi écouter le bi nga xam ne. c'est-à-dire moom moo ko jël si gisul ci moom kenn koo xam ne da nga troublé kenn koo xam ne dafa jaxasoo en fait. c'est-à-dire Adji moom ay kàddu la yëkkati. oui mais kee. d'après Adji Sarr kee ay acte la def kan moo gën a ñaawle dafa dem suite beauté. wax ko taxul mu nekk dëgg. dafa dem suite beauté. oui loolu c'est pas moom moom la sa à dire l'homme là il est passé aux actes kii nii Adji Sarr moom wax. ñu ne wax ji dafa ñaaw mais acte yi nag. duñ ko condamné oui ne foofu laay waxee en fait. mais parce li nga wax la ko mooy musa Moussa Moussa déglu nañu gynécologue bi ko jël si après nee na bi mu ko xoolee. dafa doon sa laaj sax kan la ñu agressé euh, sexuellement ndax mënul woon xool Adji Sarr di yaakaar ne kii il a été euh, abusé benn euh, le le capitaine Touré aussi on l'a on l'a écouté maanaam nit la yoo xam ne dañoo jël dañoo prêter serment ci li ñuy liggéey donc est-ce que ñam ñeme nañoo wax loo xam ne ñan wul maana xam nga dama la wax sànq ne la gis nga ñoom seen yaakaar bari woon na trop ci seen médecin boobu nee nañ Alfousseynou Gaye. oui mais Alfousseynou Gaye démb li mu wax. waroon ak ñoom li ñu yaakaaroon waroon a trop. mais li mu wax. waroon a parce que li mu dégg nañ ko. parce que ñëpp dégg nañ ko mais loolu lu ne mën na ko faa yóbbu. mais ku ne mën na ko faa yóbbu. dégg nañ ko mais xam nañ ne Ousmane Sonko. xam nañ ne Alfousseynou moomu ci boppam li mu waxoon boobu ba ñoom ñu am ci yaakaar wax waxu ko démb de. il a dit le contraire mooy li mu wax li ñoom dañ ne woon euh, affaire bi amul comme. bu di kii waaw. échantillon na mais démb li mu wax. am na sperme non. oui mais sauf que cest sax di ko fi génne. mais je sais que. dañu war a les choses Maodo Awa. en faisant c'est une citoyenne du nom de Adji Sarr l'autre c'est l'autre citoyen du nom de Ousmane Sonko kii nee dañ koo tooñ dem nañ yoon c'est-à-dire buñ ci faral kenn nañ leen taaj ci digg bi ñu déglu leen justice def son rôle. juger mbir mi parce que mbir mi nag dafa yàgg te gëm naa ne démb c'est une étape extrêmement importante dégg nañ ñun ñëpp. à peu près même bu fekkente ne mbir mi génnagul. Mhm. xam nañ à peu près à fan la ñu mën a teg toor bi. parce que bu fekkente ne vous a déjà Ousmane Sonko. dama la bu fekkente ne tey jii ñun ñaar. parce que il n'a pas parlé la parole. ku nekk ci ñun benn boor la procès bi féete démb. mais ku nekk ci ñun bu yàkkamtee procès am ñu dem à la justice ku nekk indi ay preuves mais buñ ko yàkkamtee bu ñu fixé le procès ñun ñaar ñett ñu war a ñëw kenn ki ñëw keneen ka daw ne du ñëw di wut ay lay. parce que boo jeexalee say manipulation nag <laughs> mais lay rek lay rek moom mooy remplacer manipulation yi ay lay ay jotuma convocation et cetera mais xam nañ c'est-à-dire ku sérieux Ousmane Sonko daa manipuler manipule manipuler ba xamatul lu muy wax barke Dembo Ndiaye li mu li mu wax Idriss Seck le président Idriss Seck. Mhm. def na Idriss Seck dafa ñëw fajar la ñëw këram sans aviser est-ce que loolu yenoon na maanaa responsable bu doy na Idrissa Seck mag bu doy na Idrissa Seck nga jógee fajar sa kër di dem këru beneen responsable sans l'aviser. est-ce que loolu yéen a maanaam c'est pas vrai. non yow da nga préféré gëm Idrissa Seck comme am na ñoo xam ne préféré gëm Ousmane Sonko noonu rek la mais ñun dañoo am xel pour xalaat non mais nañ ko analyser bu baax wax jooju nañ ko analyser bu baax. c'est-à-dire que Ousmane, Ousmane Sonko quoi que l'on puisse dire aujourd'hui on peut dire qu'il a épuisé ses balles de manipulation. moo tax mu aju fële. mais par rapport à la force politique bi ngeen am en face ak fi ñu jëm est-ce que c'est pas trop risqué il se dirige euh, ñaar. procès bi verdict bi ñu ngi koy xaar dans une semaine et les Sénégalais ont peur en fait tey jii ni situation bi ñuy bi ñuy dund nii nee ma ëllëg yéen yéen a war a rendre compte donc yéen yéen a yéen lañu war a laaj ndaxa ngeen war a mën a gérer lii ba bal du tàkk kenn du ñàkk ba kanam. ça c'est l'état nous nous sommes politique. l'état ak ñun ça fait deux politique. non l'état c'est pas politique du tout l'état l'état état la ñun nous sommes politique. li ñu war ñun en tant que politique danañ ko wëyal. mooy lan danañ ko def. vous allez la contrer. non c'est-à-dire que barrer la route. mais mais mais ce qui est sûr que c'est ça leneen li c'est l'état leta aussi du bàyyi boppam ba ñu yàq les fondamentaux de notre république. Ousmane Sonko c'est pas la première personne bu ñu fi mës a ñaata kilifa lañ fi jugé ñaata nit ñu am daraja lañ fi jugé. Mhm. te affaire bi àgg na te mbir mi aussi man dama jàpp ne dafa war a àgg pour plusieurs raisons raison bu ci bu ci njëkk d'abord mooy c'est pour sauver la face de l'État en réalité lii bu àggul woon bu demul woon. suñu état mën na jaar fi yàqu. suñu république mën na jaar fi yàqu dama ne la bu jàllul c'est-à-dire que. Euh, Ousmane Sonko bu defee pression état. ba état reculé ba état reculé. c'est-à-dire bu ñu yeboo ñu tëj tribunal transformer ko en leneen. mais xam nga mais c'est-à-dire que aujourd'hui mhm. on doit au-delà même de tout ça on doit sauver la face de l'état. d'accord d'accord naa ci li nga wax c'est important mais président Sall fa mu waxoon ne woon am na dossier yoo xam ne euh, bu ko jotee da ciy noppi parce que bu jugee. coow li muy indi mooy ëpp li nga xam ne mooy li muy defar maanaam loolu c'est une sage décision l'affaire Ousmane Sonko bi président Sall yéegee est-ce que waroon appliquer propos yi nga xam ne waxoon na ko en pensant peut-être aux conséquences parce que c'est quelqu'un boo xam ne il a eu 15 pour cent de présidentielles yi ñu te yëf yi wane na ko déroulement bi on parle déjà de plus de 17 morts ci loo xam ne dossier bi rek moo ko indi. te pourtant euh, boo xamante ne ça mobilise plus de dossier vide boo xamante ne c'est deux cent quarante et un quarante une page mhm. dossier vide boo xamante ne c'est quatorze jeunes morts dossier vide boo xamante ne ëlëmal na nit ñi de gauche à droite les gens parlent de ça donc cela veut dire que c'est des mensonges c'est des manipulations ni responsabilité non revient à l'État. oui mais moom laay wax en fait l'État c'est Macky moom moo koy incarné jamono ji loolu laay wax ni en fait Macky Sall c'est vous yen yéen régime bi yéen a ko yor xam nga aussi ce genre de situation am nañu ko mën a liggante ba du egg fii malheureusement tey jii nii débordé na kenn xamul fan la yem les Sénégalais ont peur des commerces perdus des vies perdues métti na. dans un état il faudrait que euh, ñu ñu ñu parce que l'état de droit c'est la soumission à la loi. di -hmm. du simple individu à la puissance publique. bu fekkente ne aujourd'hui Ousmane Sonko affaire bi dafa éclater rek taf ñu jàpp ko tëj la on peut dire mais actuellement on l'a laissé. épuiser toutes ces voies de recours loolu mooy état état euh, euh, patience la muñal nañ ko tout ce qui ressort de son droit jox nañ ko ko ba mot sëkk depuis deux ans. mais fii la war a mën a depuis deux ans et poussière. aujourd'hui jàpp nañ ko les gens parlent de wéy dafa gaaw dafa rapide non c'est-à-dire il faut que les gens arrêtent dans ce pays. il faudrait que tamit que les gens se respectent. cette affaire là n'a que trop duré te jàpp naa ne man. bu fekkente ne Ousmane Sonko am na dëgg waroon na gaaw jeexal dossier bi bu fekkente ne rek dafa bëgg a diriger sa pays la waroon na dindi cette cette tache noire la te bu fekkente ne moom bëgg ko dindi cela veut dire que a anguille sous roche. il ne faut pas qu'il vienne nous dire que c'est ah, un dossier politique ou c'est un pas bizarre. C'est pas du tout nous en témoigner.